Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous ngi lay nuyu ak sa collaborateur yi nga aussi M. de passage Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail et euh, suñu collègues honorables. yi Monsieur le ministre euh, de l'Enseignement supérieur gis naa ci rapport bi ne di ngeen en charge suñu préoccupation ci système LMD bi loolu ñu ngi koy waaye ñu ngi leen di ñaan daal li nga xamante ne si moo nekkoon ay duel ñu ko daan wax duel ak duel 2 ngeen indiwaat ko parce que dañ ko supprimer léegi. monsieur le ministre euh, léegi master 1 aussi nekkatul di euh, diplôme léegi loolu tamit ñu ngi leen di ñaan ngeen xoolaat ko ndax étudiants yu bari ñu ngi cartouché te dara di découragé euh, di quitter université bi te di université bi te dara waralu ko rek lu dul système LMD bi monsieur le ministre su ma paree aussi. Euh, ñi ngi maa ngi wax tamit pour rupture am euh, rupture bi nga xam ne moo am ci formation académique bi ak formation professionnelle au niveau de la FASTEF ngeen xoolaat ko ndax da ngay xool je donne un exemple étudiant boo xamante ne si ne day nekk université jàng ba am licence en anglais bu bëggee dem jàngale ji il faut que mu dëppaat demaat FASTEF def fa deux ans pour mën a am kayam certificat d'aptitude euh, d'enseignement moyen étudiant bi nga aussi dafa am master 1 du faire des def formation euh, niveau niveau CAES pour mu un pour mu def CAES il faut que mu am master 2 Ce a doy waar mooy da ngay étudiant boo xam day jàng 5 ans am diplôme am master en anglais master complet du il faut que mu démarre, ba euh, de ba defaat sa formation pour mën a am CAES certificat d'aptitude d'enseignement secondaire te bu paree aussi à cause euh, de la carence euh, des enseignants dañ koy yóbbu ci ay zones yu reculées te bu demee duñ ko yóbbu directement ci lycée yi dañ koy yóbbu ci collège yi mu am fa ay surcharge ay surcharge horaire horaire te heure supplémentaire yooyu duñ leen ko mas a fay kon ñoo kon loolu ñu ngi leen di solliciter ngeen xoolaat ko kon foofu li ñuy li ñuy li ñuy bëggoon mooy au sein des universités académiques ngeen inclure fa filières en didactique des disciplines en pédagogie générale euh, en déontologie en législation bu ko étudiants étudiant bu bu directement dina mën direct euh, comme ak ak ak ki ak kii bu mu man di nek mo xam lettre la mo xam faculté des sciences la monsieur le ministre suma ma aussi dina dina wax ci affaire grève étudiants na étudiants yi li ñu grève euh, à cause des bourses bari na trop lool aussi ñi ngi leen di ñaan ngeen ngeen gën ci taxaw euh, monsieur le ministre étudiants yi aussi da nga leen di gis ñu jàng ba pare am seen ay diplôme da ngay gis étudiant boo xam ne day jàng ba am master wara mu am doctorat ubbi tiroir yi dugal ko ci kon ñi ngi leen di ñaan ngeen accompagner étudiants yi bu ñu génnatee en collaboration avec le ministre de l'emploi ngeen accompagner leen ñu utal leen liggéey bu ko defee taux de chômage bi dina mën a wàññeeku ci côté boobu monsieur le ministre ñu ngi solliciter aussi la construction des logements sociaux pour les étudiants ndax boo xoolee étudiants yu bari dañ ciy am problème ñun temps yi rek suñu étudiants yi nga xam ne ñoo dëkk Daaru Musi amoon nañ ci ay problème kon ñu ngi lay ñaan monsieur le ministre nga gestu étudiants yi euh, ci ci anam bobu suma paré aussi aussi euh, Dina wax si euh, un étudiant projet un étudiant un ordinateur man projet bobu vraiment dama ko déssé comprendre répartition ordinateur yi ni muy demee ndax ci document bi bi euh, à la page 21 du document intitulé programmation pluriannuelle des dépenses de 2023 maa ci gis ne projet bobu 5 milliards ngén ko alloué alors qu'en 2021 étudiants euh, c'est un nombre 244 421 étudiants Si je calcule calculer par exemple ben ordinateur ma évaluer à 200 000 bo jëlé 5 milliards par 200 000 25 étudiants rek de servir répartition bobu je vous remercie